depuis nag kuréel gi ngeen xamee WHO daal di nag eh, yëbaane nag bi la feebar nag léegi nekk na feebar boo xam ne dafa lëmbee àdduna ñi nga xamee nag global pandemic réewum Gambie bokk na si réew yoo xam ne jël leen ay jéego pour a fexe ne ba fànq bi la feebar ba du tasaaroo si biir réew mi si fi nga xam ne moo nekk goox yi ay comités yoo xam ne moom lañ taxaw pour xeex bi nga xam ne moom lañu xeex coronavirus bi jël leen ay jéego pour nag jéem a fexe na pour jàngal askan bi si li nga xam ne nag moo nekk bi la feebar Sirifo Mbodj nekk ndaw ji nga xam ne nag moo daal di nag ndaw ñi nekk sa tund ndox du jëmbal xool daal di na na wax ne jamono ji jël nañ nag fukki place ak juróom yoo xam ne moom lañ fa lépp bagage ne nañ fa mën a dem di raxasee seen loxo yi mu daal di da wax ne nekk yi ne nag gën gën a booloo te dañ nañ continuer di dem si rajo yi di gën a waxtaan nit ñi gën leen ñaax si bi la xeex Cambérène Cross Society nekk sa tund North Bank Region di uyu si Ousmane Sy Diallo moom daal di nag ñaax euh, volontaires yi daal di ne si liggéey bu rafet bu nga xam ne moom lañ nekk di def si booday laay si jàllekaay bi frontière yi may am daal laay ak kër ay kër ali da eh, boori Farafeñi fale eh, xale yi recrues yi ñu ngi fa ak ak waa xel yi ñu fa ñoom ñëpp lan lañ fa nekk naka la ñu gëstu ñi ngi jàll si booda bi Eh, mbaa ami eh, mandarga bi si seen yaram bi suñ ko amee tamit ñu mun a raxasu seen loxo yi ndox a ah, ndox a saabu li nga xam ne loolu lañ wone fii nii loolu tax na loo xam ne pour naka lañ mun a moytandee suñ bopp si feebar bi emuñ foofu ñu dem si biir dëkk yi ni pour yëgal nit ñi si école yi si dëkkuwaay yi marché yi foo mun a dem rek pour ñu yëgal nit ñi naka la nit mun a amee virus bi de ak naka lañ ko mun a moytandee suñ boppa loolu yëpp nekk na si biir waxtaan bi loolu rek ñu ngi ko def anywhere foo mun a dem rek si eh, Bank fii rek volontaire ñu fay seen prépare bi ko ñoom ñu ngi gis ne li nga xam ne loolu moo leen gën a elloo moo di ne ñoom seetu ndax ñu ngi am foofu xaalis wala dara because ñoom ah, ñoom ñu ngi sacrifice ñu gis ne da eh, ñu ngi nekk out pour pour dimbale nit ñi di most vulnérable foofu la eh, dem waxtu bu nekk foo mun a dem rek pour ñu mun a nekk foofu pour ñu eh, dimbal leen nekk na suñu number one ene boo xam ne ñu ngi ko boo xam ne a gis ne ñu ngi dimbale nit ñi pour ñu mun koo am sang m Jaaju nekk public health officer ba nekk si Amdulay Post moom si jamono joo xam ne nag mu ne bi ñu commencé li nga xam ne moo nekk screening bi amul kenn koo xam ne nag yaa ngi am bi feebar si sa jëmm ji waana luñ nemmeeku rek moo nekk am na ñoo xam ne nag dañ fay daal di ñëw nag seen yaram mu tàngoo bi di ëpp de loola waral ba dañ leen di jox ndox bu sedd ba pare nag euh, teg leen benn place ba nga xam ne nag seen yaram bi daal di nag sedd ñu daal di leen bàyyi waaye nag mu ne di si jamono jooju tamit dañuy bind li nga xam ne nag moo nekk seen details si maanaam seen téléphone number si pour nag daal di continuer di leen nemmeeku di xool nag naka la seen wit géram daal di continuer mel amaanguñ koo xam ne mandarga yoo xam ne demee na comme like waaw mu am euh, comme standard case definition of signs and symptoms yooyu noonu yu coronavirus beneen bi mooy lu ñoo record fii dañ ko dee jox suñ euh, beneen office bu nekk euh, SAO e boobu noonu tam moo dee joxe information yi EDC te pare gan boo xam ne dafa joge fii China fu jàngoro bi jógee réew boo xam ne am na ko dañ dee binda information yooyu noonu jox ko suñu office bu nekk ak euh, euh, SAO SAO toxal ko jo jokko SAO toxal ko jokko EDC euh, EDC ñoo day jóg am nañ seen jéego tamit seen matuwaay jóg dem xam kooku noonu fu mu nekk parce que adresse yi kooku mu ngi fa fu moo dal Gambie yëpp mu ngi fa dañoo dem seet yaramam bi seet wér bu yaramam su nekkee dalut ñoom tamit am na seen jéego nuñ ko dee def ba at least nit ki nekk na am na wér bu yaramam te pare lawut ben benn jàngoro boo xam ne. ah war na koo law si mbokkaam yi tund bi ñu gën a xamee nag North Bank Region moom nag nekk na dëkk boo xam ne nag dafa dal dina am ñaari diggaloo yu mag yoo xam ne ne moom la am ak réewum Sénégal foo ne nag nit ñu bëri foofu la ñuy faral di jaar pour dugg si biir réew mi loolu waral na ba tax na ñi nga xam ne dañu nekk njiital gox yi ñi ngi ñaax ñi nga xam ne ñooy nekk askan bi pour ñu bokk si xeex bi ba gis na na bi la feebar dugg suñu réew bi for Paradise TV News Ali Dramé